dal leen ak jàmm yéen yu bari xëyandoo tey ay bés yu ñu dese wala boog fan yu ñu dese ci bile campagne électorale Walf Quotidien taxaw ci ñaar ñi le eh, bés nañu ci campagne bi muy njiit réew mi Macky Sall ak Ousmane Sonko kenn ku ne eh, dar nga sa mbër ci waxin Ousmane Sonko dar Bassirou Diomaye fay ngir mu doon juróomeelu président bu Sénégal njiit réew Macky Sall dar Amadou Ba ngir mu falu juróomeelu président bu Sénégal yéen kaay bi ni ñoom ñaar ñi le moo xam Ousmane Sonko njiit réew Macky Sall daañu sax géew politique bi waaye nag duñu jegewantoo Amadou Ba moom euh, dal na ci Ousmane Sonko ak Bassirou fay Faye xamle ne euh, ay cuune kenn du leen war na mën a dénk réewum Sénégal ne réew kenn du ko fooye amadu Ba moo ni waxee keneen ku wax ci campagne électorale bi euh, candidat bi di Anta Babacar Ngom diggee lu toll ci juróom juróomi million ci wàllum xëy Mame Boye Diao ne bëgg na defaraat Sénégal Serigne Mboup moom bëgg na juróom benneelu pôle goo xamante ne régionaux fexe ba suqali gox yi ngir Sénégal mun a dund naataange yitteel euh, Serigne Mboup mu ngi ci yéen a kii abid Walf Quotidien yéen a kii abaa ñu dégtali tamit concours récital euh, Coran 2024 euh, xale bi di Khadim Sey moo ko jël Grand Prix Senico atum ren ji yéen a kii réew mi Quotidien ne atum ren la Sénégal bëgg xam kan mooy wutu njiitu réew mi Macky Sall ci bopp réew mi Amadou Ba di candidat bu Benno dal na ci yenn ci candidat yi xam le ne am na ñoo xamante ne tooke lañu ci mim réew kenn waru leen a dënk réewum Sénégal Idrissa Seck moom ma ngay dox ci jàmm jàmm ngir am ci euh, jàmm jooje am ci Sénégal laata ñu jublu ci lenn ñu fexe ba Sénégal am jàmm euh, say su ne yéen kaabi di ne Amadou Ba moom euh, daanaka xàll na yoonam ma nga woon ca Tambacounda jege premier ministre maître Sidiki ba ci Tamba googe jàpp Kédougou bëgg na suqali yooyu la gox ci campagne googe nag Ousmane sunko dar na Bassirou Diomaye Faye bokk na ci Anta Babacar Ngom xamle ne ma waxtaan ak ndaw ñi mu ngi leen ci jamono joo xam ne Diaw bëgg na indi yokkute ci Sénégal Aly Ngouille Ndiaye moom bëgg naa sàmm ak itamit euh, toppatoo wàllu napp meeg tourisme bi mu ngi ci yéen a bi di kaf euh, critique yéen bi di euh, critique des ak ñun ci candidat yi Bassirou Diomaye Faye ca Ziguinchor gamu xam le ne Ziguinchor munoon na doon capitalu koom-koomu Sénégal ndax la fay ci ay meññeef yéen a bi yor yor gi xëy duñu dégtal caravane coalition Diomaye président fu ñu jaar ca Casamance ndiiraan lay doon lim bu takku ci ay doomi aadama ñoo leen di dara di tàcc Ousmane Sonko ko Basirou Diomaye Faye yéen cabinet Cap Skirring mbooloo ñoo leen fa euh, gàttanu ba usuy euh, jàpp Ziguinchor ak Bignona 24 heures ne candidat yaa ngoog kenn ku ne ma ngay xool nooy dagaane baatu askan wi waaye nag coalition Benno Bokk Yaakaar dal na ñu ci euh, Diomaye euh, président ñaawlu kaddu yi nga xamante moom la Ousmane Sonko yëkkati euh, yàggut teg ko ci ndoddu Amadou Ba bokk na ci kii di Amadou Ba mu de sax dal na ci Bassirou Diomaye fay moom Bassirou Diomaye fay président dellusiwaat na xam xamle ne ci fan yi dina gindi askan wi ci lam ci ñaata la toll loole nag la saku yi tamit Amadou Ba gindi ci askan askan wi 24 heures ne ma ngi askan wi ca Kaolack euh, Khalifa Sall xam ne ne bëgg na euh, Sénégal doon célèbre yoonu transport ci Afrique euh, Daouda Ndiaye di tamit candidat xam ne ne budget koppar ya ñu xaymal Sénégal ci wàllub mbéy meek càmm gi bëgg na ko ful jëlee ko ci 2 pour cent ba 15 pour cent mu ngi ci yéen kabidi 24 heures yéen kabidi le mandat ne ma ngay song ma ngay dal ci Bassirou Diomaye fay ak Khalifa Sall Amadou ci jamono jamono ji euh, na boppam yéen kabi di le mandat xëy fësal protocole bu Cap Manuel ana la ñu ci lañ ci yan poñ la ñu fas yéene déggoo euh, déggoo gaak euh, na mu demee diggante njiitu réew Macky Sall ak Ousmane Sonko yéen kabi di turbine fa la desandi poñ yi nga xamante ne jot nañ caa négocier waxtaan nañu ba juboo njiitu réew Macky Sall ak Ousmane Sonko yéen kabi ne am na ca lees waxul ci li lalu ci libération Ousmane Sonko témoigné de Sonko keroog ba jano ak taskatu xibaar yi dese naa mun a leeral dialogue gi dox ci diggante njiitu réew mi euh, Macky Sall ak moom yéen cabinet euh, Benno Bokk Yaakaar ña ngay campagne ci jamono joo xamante ne Bougane Gueye Dany ma ngay nag xool ban candidat la fas yéene dar ci jamono joo xamante ne euh, cellule gëm sa bopp ña ngay déglu Bougane Gueye Dany ngir mu joxoñ leen ci ban candidat la ñu fas yéene féete yéen cabinet di Le Quotidien ne congu diggante Benno ak coalition Diomaye président campagne gaa ngi tàmbalee jaax Ousmane Sonko fàttali ne amadu Ba bëggutoon toon benn yoon euh, Ousmane Sonko ko Bassirou Diomaye Faye génn kaso Amadou Ba bu sañoon ñoom ñaar ñooñu le desandi ca Ndungu Sine Amadou nag mu ngi wax ne euh, dënk ñaar ñi le mu Sénégal danger la mu ngi ci yéen kabidi la euh, quotidien direct news campagne électorale bu coalition Benno Bokk Yaakaar wàcc nañu ngir dar Amadou Ba fay Faye Diouf ak i tamit candidat bu Benno wàcc nañu yenn kabidi la soleil xëy duñu dégtal virage goo xamante ne moom la virage gu mujj mu ñeel programme programme ak euh, promesse euh, di déggee yi euh, candidat yi di amee ci jamono ji ngir mun a falu njiitu réew yéen kabi di Sud Quotidien ne ligne droite gàngoog bés yu mujj fan yu mujj ci bile campagne électorale fuñ ci toll ak kenn ku ne bëgg a falu njiitu réew programme gi campagne gi na mu daan demee demeewu ni ci atum ren ji bu ñu sukkandikoo ci docteur Ndeye Astou Ndiaye Euh, bu UCAD yéen kabi di l'info ne élection présidentielle yaa ngoog euh, soreetul euh, kii lii di fichier électoral bi fan la ci toll lu ci ne ak lañ ca jot a dëxëñ mu ngi ci l'info yéen kabi di l'évidence ne Kédougou njiitu réew mi Macky Sall ak kandidam di Amadou Ba ma nga woon ca Kédougou Ousmane Sylla jot naa xalal yoon Amadou Ba ci jamono joo xamante ne Serigne Mboup bëgg naa suqali Sénégal ci programme gu yaatu yéen kabi stade moom wutali France ci jamono ji équipe national ña ngay waajal euh, seen match xarito altinati ji sax la ñu door liggéey ba euh, gaynde ga fa njëkk a yegg euh, di Sadio Mané